saa su ngeen ni wërati xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu sëriñ Daaru Asan Njaay gaaw leen gaaw ngeen abonné si Daaru Njaay TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Daaru Njaay TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su nekk fii si Daaru Njaay TV mbokk leen di leen ziar muy nek ci bop njaboot sëñ sambu bi ak mboole ñëw top ci ginnaaw yépp di leen lu nuyu ak siyaare ci fédération sëñ Massamba Oumy bi nga xamné moy taxawé mbolé xex xeex yu ci kër sëñ sambu bi ci biir ak bitim réew euh, di sante mboolem bu baax ci téway bi ra ci bisbu tedd bi nga xamné moy mooy bis bi nga xamné ne moom la sëriñ Tuubaa tànnoon ngir dakar ak boromam joxoon ci ndigal Cheikh Moudou Moustapha ñu war ko taxaw sa bu waxtu DCT sëñ bi wo njabot gi soñi len ci alcorane ak khasida ak ay bernde ñu dundal guddigi ak bëccëg gi yëpp muy lu barkel ndax bañ ko tàmbalee ba légui mel na mi ngi wéy ndax 1927 ba légui ñu koy amal lool nak yaakaar naa njaboot suñu daal suñu ci ginnaaw waaye rawati nak sëñ Massamba Oumy yàgg nañ ko dundal nak ca magña ba légui ñu koy dundal euh rawati nak gën ko fédli bi sëñ Ahmadou Mokhtar ñëwee yàlla ko suñu mom doole yàggal ta wërël ko jox ndigal mbolam cheikh ay aju ci Daaru dos yëpp ñuy taxaw bis bi kene ko diko dundal ci sa ëtt daanañ ko dundal gaa waaye bëccëg bi dañ daan màggal bu guddee xañ na ñu àndandoo dem ci baas mag ba àggale fa guddi gi bu ñu xëyee sëriñ bi yeewee ñu dellu ci tée waaye bi sëriñ Amadou Mokhtar ñëwee doon xalifa Cheikh Mamadou Moustapha ci la joxoon ndigal mbooleem cheikh bu aj ci Cheikh Mamadou Moustapha su bis bi ñëwatee nga dundal guddi gi ak bëccëg gi ci sa ëtt ak léegi nag wax dëgg yàlla ñi ngi ciy nab na bi di ci def suñ kam lay kàttan mag ñi fi jiitu ñëpp ba ak suñ Mamadou la mi ñu ko ñaanal mu dul fay yàgg loolu te taxawaay lépp rafet na macha allah dëgg boba ak legi tam ni rek dañuy dundal guddi ak bëccëg yi ci sunna ak tam ci bernde ak lepp ndax non la ko serigne bi santaane def ci ay ñaan ñaanal ci serigne Touba khadim so mi nga xamne mom la mom lañu defal bis bi ak mboolem njaboot bi top ci naam yépp moy njaboot serigne Assane Ndiaye geeg li tambalé ci adam ba mu jullit mu faatu dal ñu fasal leen ci bir ñaan gi ndax xaj nañ ci ndax lu baax mom dafa yaatu moom ak legi tam wax dëgg yàlla ñu ci gis ak amassement bu baax baax di santam tam fédération Sëriñ Massamba bi nga xamne yalla dogal moy couvrir événement yi nga xamne mo aji ci kër mbolo njaboot serigne sam umu gi yépp ndax bi ñu taxawee léegi wax dëgg yàlla yàggut loolu waaye gis nañ ci satisfaction bu baax a baax ci ay taxawaay ci euh, boole mbooloo mi waaye tënk leen dañ ànd kon suñu jëwriñ ji nag di suñ baara ak mbooloo njaw topp ginnaaw mi yëpp di ko lool yàgg war itam njaboot gi yàgg topp seen ginnaaw te jëfee wax dëgg yàlla gàccee ñu benn yoon wax dëgg ñu ngi koy ñaanal suñu borom doole ko tawfeex bu baax ndax euh, ndigal rek moo ko ñor ndigal rek lay wéyee wax dëgg yàlla solul kenn ci leen képp ko xam daal jàpp bëgg nga gis si kam daal mooy ndigal ñëw nga defee ci na la neex ko nag kon tawfer la yalla sun bom do lay dimbali dal ko fay yagal yagal njaboot ci ginaam ñu yag jekku ndigal tam ba lepp lu ñu seenu ñu am ci lu kay njort waye di sant mbooloo njëw sun da Assane gi yep tam ndax lii fédération sun Daaru Assane rek moo ko sabab ndax ku ne xam ne evenement yi niñ koy couvrir legi bu wona ak ay Baye Cheikh Assane yu bare bare yaakar na jangal nañu lu bare kon ñoom itam dañuy sand ci seen i taxawaay di leen gërëm bu baax di gàttu ni kàddu yi rek xëy lu ci damm ñu ma xam am ne mat di jëmm ji la lu jiitam ñu sant ak suñu borom alaykum assalam wa rahmatullah wa assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi julli mbok talibi ginaaw bu len bi leen nuyu baax di leen saare di leen jaajëfal bu baax ci euh yite yi ngeen dag ba access fii ci bu kër gi rawat na mboolem wa dar ñay TV gep ci bankas bi mboolem jamaat Ahiba euh, bay section Touba bi ci ndir Serigne Xaaj Ndiaye imam ak mboolem section yi nga ñoo nek ci bir euh Touba ak ci sous section yep wacc ba ci sous commission euh, communication bi nga mo ñoo ci ñëw si Moustapha Gueye moo ko jidee ñu dox ci liggéey bu euh, yaat bo xam amal nañ ko ci jour màggal Daaru Xudoos gi ci weeru Muharram bi maga si Moussa gannaaw boobu léegi xëy na xataay bi bu nekkoon ne ñee ko ci yeneen bunt ko sëriñ xëy na jotaay bi agsi na ba agsi bi fii kër ji ñu xamee ko ci kër si Mbàkke Mbërëm boobu ba léegi ba ñu xëyee ba léegi ci programme bi commencé na euh, depuis bi ñu waajee màggal gi euh, appel bi jàlloon ba boobu ñu ci waajtaay yi pour bi bis bi jegee commencé ko ci mboolem réunion yi nga si mooy jagal bis bi commencé nañ ko ci ay mboolem takku réunion njëkk nañoo réunion euh, fal li nga xam si mooy ay sous gi bi ñu demee fay commission yi détaché détaché nañ commission yëpp kenn ku waxtaan ci la war a liggéey ci mboolem liggéey bi ginnaaw bi ñu defaat loolu orienté commission yi xasi ñoo commission yi bi ginnaaw bi ñu woowaat mbooloo mi amaat yeneen réunion xasi pour defal ay biste la ngir waajal liggéey bi xasi moom la war a ci bi ci euh, ci nam nam gën a rafetee dajalaat ko euh, jébbal ko mbooleem xeer bi nekk ci kër gi mbooleem da am ñu séddoo mel mi ngi ci biir jamaano xeer yi eh, ndaw ñi muy suñu tuut tànk yi yeneen di paay eh, ak jamaano xeer yi ma faatul bis bi nga mooy dong yi xam si ñoo ni bi ñu wàcc xam ne wàcc seen ndigal soppiku ñu nekk ci kër di boole màggal di màggal màggal googu ci bis bi bu agsee fii ginnaaw boobu nag bu ñëpp ñu ko dajaloo ci lépp loo xam si ñoo ko ànd ci di jëkkati ko di eh, bi nga mooy lëkkale kër si jamaata xeer bi mooy mboolem jamaata xeer organisation bi ak mboolem association Fadaay bi nga xam nekk lu ci mel ne Dar Belal Maasé ku ne xam ko ci ab taxawaayam ci liggéey bi Belal ci ku ne xam ne seen ab taxawaay ci biir liggéey bi fépp foo xam si daayira am na fa ci biir liggéey bi bu faata bis ne ko dongo yi ñoom it seen ak fépp foo xam am mbooloo nekk na fa muy tundóori bi bustaan ay nit nekk na ci mbooloo rek nit ñooñu nekk fii bu war a war a jagal bi bis boobu noonu ginnaaw ba boobu léegi démb lañ commencé woon mboolem wàllu bi am na sous commission yu ko war saytu Euh, jële woon nañu matériel bi fi ñu ko war a jëlee ñoo ñëpp saytu ko ba indi ci bagage yi ginnaaw bi juloo waa ko su ko baas baas baas taxawal ko liggéey ci lañ ci war a liggéey gannaaw ma xam si bañ jógee ci loolu ñëw ci bisu tey bi ci weer Muharram bi bi ñu xëyee incha allah la gars yi euh, jublu ci xéewal yi euh, li ci defee onze heures yaa xanaa ci lañ commencé séddale yi li ci mel ne berne yi li ci mel ne laax yeeg ay mboolem ndékki yoo xam si àjjana ji rek ba yaa xanaa bi ñuy pare ndékki presque moo bi ñoo pare loo bi ñuy pare loo bi ñu noppi bañ a nekk sax dañoo mujj bàyyi pause ndax añ bi jege si ñu bàyyi ko ñu mën a mën a bàyyi nit ñuy dallu ngir mën a añ bi mën a lekk añ bi ñu ay deux heures ginnaaw bu ñu sëlmalee tisbaar ci sëñ bi joxee ñu mën a yàq añ bi jox ko mboole ñoo si ñoo ne gan yi fii fépp gan nekk ndax gan yi mbooloo bi ñoo ne ci biir ak daayir bi waaye gan yi ñu ku ne xam ne ñu ci foo génn ci yéen yéen kër rek am na yeneen gan yi ci mel waa Thiès waa Louga waa Daaru Bayda waa Belal ku nekk rek Belal fu nekk rek waa Njaambur gépp kon ne xam ne ne am na fa waaye ab dal nekk fa ñu war faa dal ñu ne fay dalal fu nekk rek am na mbooloo moo fa nekk dina toppatoo ngir bëggu sëñ bi mën a mën a rek mooy commission Assane Fadal li mu bëggoon ak li mu bëgg def ah, moo jiite mbooloo Assane Fadal bi bépp mu ne yàlla suñu borom mu ne ci kanam ci la nekk nekk ci wàllum euh, berne yi ak bu ko defee ci wàllum liggéey bi ay mbooloo organisation yi ci ëpp wala commission culture bi jàng xasaay arxaan ñëpp moo leen jiital ci liggéey bi liggéey bi daal lépp loo xam si waaye nekk foo xam si fa nga nekkee rek liggéey bi mën a dox mhm. boobu ba léegi ñaa si kenn ku ne yaa nga ca nekk mhm. xam bu dee amuñ ay yeneen laaj wala amuñ bu dee loolu doy na bu dee am na ay question tamit incha bu ñu ci laaj rek bu soobee dinañ ko mën a liggéey bi incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sax Moustapha ñu ngi leen di delloo nuyoo di leen uh, dalal jàmm fii ci kër Serigne Mbacke Mariam rafetlu seen taxawaay nga laaj màggal gi yéen nu ngeen ko taxawoo te jamonoy sëñ Cheikh Mariama Ba ba ci jamonoy tey waaw loolu day moom mooy ni ko sëñ bi santaane rek mooy ñu ngi koy taxawal te teg ko ci yoon mooy te mooy taasimoo bi sunnati yaquudunaa lil jannati bi isdiyaari munnati li muxlisin muazzamin maanaam ni ko sëñ bi bëgg daal wax dëgg ca ko ca koy taxawoo mooy jàngal xuraan jàng xasiida salaatu ala nabi berndeel ñeent yooyu daal ci lañuy ñuy yendu ci lañuy ñuy fanaan tel bi yëpp it mi ngi jóge ci wet bu ne ci booru Sénégal ak eh, réew yi wër di siyaare si sëriñ bi di ko ndokkeel di ko sargal di bokk moom bés bu màgg bii màggal gi nag wax dëgg yàlla fii moom jàpp na ni moom mooy seen màggal ndax dañuy fàttaliku ndigal li ci sang bi joxe woon mu Seexuna Seexul Xadim moo ko wooteeloon boppam nemmikul genn magal gum wote woote gurul ji yag na ko ñaan yalla yalla na nga ma def bis bi may dege yow muy don bis bi gën ci bis yi yàlla dogal nak mu bindel benn bataaxal di ko woote wax ni bis bi bu ñewé nañu fi dajee jangal qur'an jang khassida def salatu ala nabi bernde ngir sant le ma ko suñu borom subhanahu wa taala ngir xéewal yi xam ne defal na ma ko ci bi nga xam ne moom laa dajeeg moom bind lettre boobu ba taaxal boobu ne jox ko sëñ Samba de woo sëñ Mourou saa jox ko jox ko sëñ Samba mu def ci seede mu def ci seede loolu nag jant bi dem nañ ba waxtu wa jot sëñ Mourou Sa woolu sëñ Samba ba mu ñëwee mu xamal ko ni ko lettre bii de sang bi momako joxone ko lako defone la ko yow ci defone la ci seede genné ko jox jox ko seigne Massamba diko seigne sëñ Massamba jàngee ni tek ab bir Cheikh Modou Moussa ni ko xana day at mi la sunu at mi la sang bi waxone de mu ko waaw waaw mu ne ko xanaa day bi wi la waxone mu ne ko waaw waaw mu ne ko xanaa bis bi la de mu ne ko waa Isri na mu aram mu ne kon day bu yewanga jog ñu daal dem def ko ni ko sëriñ bi waxee ci la ak mbolom mepp ñu ñew ci jumaaji ji suñ ñëwee ci raw du xasee Ibrahima Cheikh Alxadim ñeenti koñ yëpp bu ci nekk mu am magum mu mën alxuraan mu toog fa jàng alxuraan mu dellu jàngaluwaat ñaar fukki kaamil juróom-ñett ci digg jumaa ji dellu jàngaluwaat ci wet gu ne fukki kaamil ak ñaar ñeenti koñu jumaa yi koñ bu ne mu am magum tële mu fa toog kii di jàng jës bu kii di jàng mooy bi kii di jàng mu xaddimaat kii di jàng miimiya kon noonu mooy mooy cosaanul màggal gi noonu nag la ko sëriñ bi doxalee gis nga taalibe yaa ngi nii di siyaare ci soobalee kuréel yaa ngi doon jàng ci mbaar mi duruskat yi nga xam ne doon jàng xasida euh, alxuraan ñi nga woon ci mbaar mi di di di jàng xasida kenn xamut luñ fi wàccee ci ay ay kaamil te lim bi kenn xamu ko waaye li nga xam ne wàccee nañ ko ci ay xasida itam lim bu bëree bëri lim bu takku la waaye taalibe yaa ngi siyaare ah sëriñ bi bernde leen ci xeeti bernde yëpp. loolu daal Cheikh Moustapha noonu lañ koy noonu lañ koy dundalee noonu lañ koy taxawoo xam ne sant yàlla bu baax a baax ndax euh, bis bi euh, sëriñ bi xam ne wàcc waayam lool xamal na ko taalibe bi itam kon nag loolu sant yàlla rek moo ci war ak gërëm ko di ñaan yàlla na ko yàgg yàgg taxawe te gën koy man lool te gën ci am tawféexi sëriñ bi lool ak ndimbalam tax taxawaay bi rafet na lool sell na lool jub na lool jàpp naa ne sayxu naa sax ne bu ñëwoon fii te wala tam mi ngi fi sax nag nii mu ko defee rek la koy la koy la koy digle te noonu la ko sante kon noo ngi sant bu baax a baax di gërëm di. taxawlu fi saa su ngeen di wërati xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu Serigne Darou Assane Ndiaye gaaw leen gaaw ngeen abonné si Darou Ndiaye TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Darou Ndiaye TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen bés cloche bi